jàppale ñi nga xamante ni. Mm. Euh, euh, maanaam seen i xel matut. Mm. ma gis nii nag. Mm. Euh, quartier bi ñu dugg. sa kër gi xamal nañ ma ni am nga fi ñaar. kenn gi sax kenn ki moom moom la waaye keneen gi sax xaw na ki ci tuuti rek. waaw kenn ki dafa diggu dóomi waaw daa dem ba koy nekk te nekk waaye ñoom la rek. yàlla yàlla fëgg seen bopp. amiin amiin léegi nag ba tax na partenaire yooyu. seen yitte yëpp mooy képp koo xamante ni sa xel matul. dañ lay jàppale. Mm-hmm. jox la ay koppar. Mm-hmm. ngir ñu leen si mën di jëndali yére. ndeysaan ñuy solu. ndeysaan parce que ñoom tamit. Mm-hmm. ci société bi lañ bokk. Ah, waaw waaw waaw waaw. gannaaw ñëw naa fi nag. Mm-hmm. fekkuma leen fi. dinaa la ko jox ndax xam naa ne yaay seen kilifa. ndeysaan. baax na bëgg naa na nga jàppale leen jëndal leen si ay yére ñuy sangu ba set waaw di sol set mhm. xam ne ñoom si société bi lañ bokk ay yére daal lañ leen ko jox ñu jënd si waaw loolu lépp seen yëf la daal waaw waaw seen alal la waaw waaw ñoom loolu mooy seen taxawaay ci ci waaw seen jàng maa ngi ñëw jug leen jug leen jug leen jug leen jug leen jug leen jug leen jug leen jug leen jug leen jug leen jug leen jug leen jug leen jug leen loole waaw waaw waaw ñooñu loole maay seen jaay wàccal ni photo ate waay waaw ate waay photo day amee lee waay waaw waaw ate bismillah dafa doon waaye yow it man nu may wàccal sa kii. dama dama maa fàttee jox tubay bi nijaay dama maa joxul tubay bi dama jox tubay ma sol xaaral xaaral ma sol tubay bi. jox simi tubay bi photo bi gën a rafet ma sol ko. taxa taxa taxa. góor gi yow li nga ma waxoon. non lan yow ma jox la xaalis pour nga jëndal leen ay yére yu bees nga jël yére yi say yére di leen ko jox xoolal yaa niroo leen kii yére niroo leen kii tubéy. waaw sama niroo sama yére seen yére man maay seen nijaay. amul benn problème su ma demee may def. yére yu bees. baax na merci beaucoup. jox xaalis loolu ma doon. ça va yàqal nga ne photo bu yow. yéen seen laam yi mën leen koo téye daal. tey daa mel da nga kontaan loolu rek nga kontaan ni wala la. relation la. xanaa relation la ah. li ma seetlu looy leen. ah loo seetlu. xool ne ma ni yow ah li tax li tax fi nga fi nga ñëw voté amoo lala. fan ah yàlla. yàlla. ah foofu nga ka ah, man yëg naa lépp de. <laughs> man ma leen yëndu. ah. keroog déglu la fii ngay xam naa ni mu demee fekkente ni yow la faju ji fekkee sama lu yàlla man faju gis nga ña gis nga gis nga ñaari nit ñuy sëy dañuy waxtaan mu amee problème ñu waxtaan ko seen biir néegu sëy ma Samba du ko yëg ma ma du ko yëg ma faat du ko yëg ma Dudu du ko yëg ma musaa du ko yëg xam nga nag tey waxu nit ngay dëgg nga ma waaw. waaye nag bu feebar day am rek man de dara daluma tey ngaa làmb sa nijaay ba xam ngeen jéem ko faj ji ko xam man de dara daluma wax dëgg yàlla. mais moom. mi ngi ci. ngi ci bu baax waaye nag ah laaj rek ba xam yaa ngi yow laaj bi rëy na. waaw waaw fàq ma damaa damaa bëgg damaa mm. a moom gannaaw dinaa ko dinaa dinaa wax ak moom wax tamit am na loo xam yow doo ko mën a wax léegi man dinaa ko ñuus mu dem faj yi. daa war a faju de. ah xam naa nag bëgg naa am doom. ah ngeen di dégg sama doom nijaay ak doom bàjjen sax. loolu laa bëgg ah. <laughs> bu amee doom nga su ko demee gaa yi bu ñuy ngéntee gaa yi di lekk soow bi ak ak laax bi. waaw. Ah. ba dem jël liir bi lekk ka. Ah. waaw lekk bi. liir kay da ngay bàyyi bu màggee ma may la ko soxna rek. <laughs> loolu dax kay loolu ma su ma amee doom day rafet. waaw da ngay bàyyi ba mu màgg ba may la ko dégg waaw maa ngi egg ci biir dama sonn. ko baax la dem noppale ko dégg nga. wàccee say bët nag. Biar. Biar. la bu nu bee kaay bu nu bee. yaa ngi soxla doo ñëw fii kaay rek. affaire la toog bu nu bee waaye bu may nelaw waaye waaye man waxtu bii tëdd la. man waaye toog a nekk naaj. fii laay toog toog fi naaj pour lan. ndox koy bëgg. lu xew. yaa may dégg bu baax. lu xew. sama waay. Hmm. dama seetlu benn affaire. Hmm. yéen yéen a ngi bëgg a yàgg fii. fan ci kër gi. yaa ngi woo. da ngeen bëgg ñu génn dem suñu. Hmm. xaaral laa bëgg. ngeen am doom. moom bu dee mënta am yow nga amul. loolu la. Euh, ñàkk góor doom. góor doom góor doom. mais fexe leen am doom liggéeyantu leen ko. ah wax ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci neexoon nañ ci de. ñu ngi ci de jéem a leen ci benn fexe. fekk yaa nga luy sa problème yow bu gars yi noppee da ngay noppi rek bëgg bëgg naxa saale. ñu ngi ci ñu ngi ci. dañ cee wala jóg. loolu dafa dafa dafa sut sa sa sa say wax. waxtaan naa ak sama dafa sut say say la. wax dëgg la xam naa lépp man man maa loolee. waxtaan naa sama obaaj feebarul yow yaa feebar tu es malade. maanaam moo ma dal. da ngaa amee jàngoro. lan la amee. jàngoro mënta am doom nga am. oh mi jaay kii wax na la dëgg tey de. waaw tey moom wax na la dëgg. wax na dëgg boobu ba léegi amoo doom amoo génn amoo fi dara nga dëgg kay. suur ko suur ko. Oh! man gis ngeen sama doom ñëw na fii ci kër gi. waaw am naa doom bu góor bu mag. waxul boobu de. boobu loolu en fait bu njëkk ba la. waaw boobu de. waaw yooyu yooyu yooyu. kon kay seen umpaañ moom moo war a dem faju ji man kay waruma faju. léegi xam nga ni nag. sama faay. waaw aal ma ko ma xool yaa fee wala moom. nu ma la ko aalee looy def boo ma waxee li bu ma la abalee sa umpaañ loo ciy def ak nooy def ma abal la sa umpaañ. damay fatoo ak moom. waaw waaw léegi fu léegi fatoo nga ak moom après fatu ngeen nooy def. ma ma ma tëdd foofu ma tëdd ci daal ma tëdd ci daal bi. après. ah après. xamoo abal. déedéet xamoo ko. xamoo ma ko wax ma ko. yaa ko tey xam nga ko de xam waaye xam nga ko xam nga ko. li ma koy def nga koy def. waaw fu ko demee yow xaama dee la soxala xaama dee la. waaw yow eh ñu solo noppi nga naan ma ay xaama dee la loo may dee. loolu mu ñëw dee la rek yow. eh buy ma teg leen ah loolu moo ko déggati sa gémmi mais kon dafa différence dafay am loolu. yow bu ma amul doom yow yaa koy amal doom yow. da ngaa war a am doom nag te fii xoolal fii am doom fexe fi li jënd kare na ci amul mu am doom loolu léeg naa la affaire naa li jënd kare foofu nooy def. li jënd na. parce que xam nga ñii ñii xamuñu seen bopp boo noppee rek di xamuñu ko yamale fecc ci baara bay foog nga mën a xam nga a xam nga rek looy topp sama nijaay naan ay ko sa nijaay. koy wax. ko waaye naan ay amal doom ak àll ma sa jabar sa jabar nijaay noo koy jëlee. mu nuwee mu nuwee. lan man la. waaye xam daf nga daf dof bi nga doon koy waxee bu doon bu ma xamoon li nga may di wooyee du fi ñëw fayda bi bëgg a def kon li may wax wax naa ko fële on tout se télé doom moom fekk trois ne ñëw ci nii wala wala mu ñëw ci ne wala mu jug sama bopp li mu ne ma balaa ngaa jeex yow laay amoon yow nga am doom mu jeex tax